alhamdulilah bu dee laaju mbokk mi ci tegu mu ne moom daa tàmm julli yëpp rek daanaka wenn saar la koy jullee wala yaari saar waaw loolu de ayut dara nekku ci waay la gënoon nag mooy alxuraan jeex comme dafa bari bari na ay saar la gënoon rek mooy boo jullee ci bii bo ëllëgee nga julli ci nangam su ko defee loolu da nga ci mën a jàngaale alxuraan ju bari comme alxuraan dafa bari boo ko langalee leen rek singili ko dara di ko jàng ak a jàngal rek incha allah bàyyi la ca des. day mel yaa da ngay jël lii bàyyi lee teewul nag dara nekku ci nit ki mën na koo def na bu fekkee sax da koo tàmm waaye daal la gën mooy alxuraan ji léeg nga jàng lii léeg-la nga jàngalee nga xam ne la ngay laal côté yëpp moo gën nga jël dara loo xam ne bis bu set rek moom rek ngay ngay jàng nangam teewul nag root na ci sunna am ay julli sunna yoo xam ne yonent bi salaa salaam saar yi rek la ci daa jàng lu mel ne safa witar ma ne sabi isma rabbikal aala ak kaafiruun yu mel noona léeg-léeg it bisu iid yi yonent bi daana jàng lu mel ne ay wasamsi ak sabbih ma rabbikal a'la ak yu ko nuru waaye bu dee julli farata nag di jàng lii bàyyi di jàng lii boo léegee nga jàngalee moo gën nag nga bisat nga jàngaleen na ànd ak loolu lépp nag loolu moom julli gi dara newu ci ndax lañ la defoon lañ la santoon def nga ko mooy di julli jàng faatiha ak saar saar woo mën a jàng rek su boobaa loola dana doy laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne dafa dégg ñu ne jigéen bu fekkee ne amul jëkkër euh, man daal xam ne amul amul buum nekkul ci buum yàlla du nangu ay jaamu yàllaam loolu de boo ko xoolan ci xel sax wax dëgg danga xam ne jërul laaj est jigéen mooy may boppam jëkkër kon jigéen gu toog génn góor ñëw ne dama ko bëgg yàlla jékki-jékki ne ko du ma say jaamu yàlla lu mu def na wax yoo xam ne moom ay waxi wax yoo xam ne xel sax boo ko xoolee coon xel sax danga xam ne lii de lislaam du doxee nangam kon am jëkkër rek am jabar ak yu mel noonu loolu ma jotewut ak dara yàlla naan du ma nangu say jëf ak nangam képp ku jëf-jëf ju baax te sellal jëf ji ngir yàlla rek yàlla nangu ko loolu nag duñ sóoraal ndax am nga jëkkër ak amoo jëkkër loolu moom du ci dara wallahu aalam wax yu mel noonu yu bari nag yenn ci aadala mag ña ñoo ko daa wax ñaare di xupp jigéen ñi ngir di bañ ñuy bañ a sëy ngir bu leen ñaanee am ku baax ku leen ñaan nañ gaaw dem sëy eh, xëy na yu mel noona waaye nag ko ne xam ne yàlla lu mu sant jaam bi nangoo gam koy nangu ak ñàkk nangu ko ajul ci am na jëkkër ak amul jëkkër ma nga aju ci jëf ja defe na ko na mu ko war a defee te mu seetlu diggante ak boroomam rek wallahu aalam laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne takk béjjën dañuy wax ne dafa xaram waaw dafa xaraam bu fekkee ne kooka lam ci jublu mooy ay kaaraangeeg damaa bëgg mu wattu ma béjjën mënta wattu kenn ndax ka moomoon béjjën bi sax mooy xar mooma bañ koy rey ci béjjën ba lañ jàpp tëru ko rendi kon béjjën ba jëriñu ko dara ndax béjjën moom du jëriñ dara kuy takk te mënoo ñàkk takk yemal ci alxuraan wala ci turu yàlla yi mu ne nag daa gis baayam Euh, wala maamam di ko takk loolu waxoon na ko laabire ko waaye mukkoon konne di ko takk mooy laaj nag ndax kon mën naa jékki-jékki jël ko sànni ko wala yu mel noonu déedéet loolu nag bu mu la ci fekk laabire ko li nga xam rek te leeral ko ko ba mu dugg ci boppam ba mu xam ko ne ko lii kat yàlla bëgg ko yonent bëgg ko sëriñ Tuubaa mi nga wax ne xëy na mooy sëb sëriñ incha allah bëgg ko te day dugg ci cadre bokkaale incha allah fexe ba mu bàyyil ko boppam. amaa nag jékki di jël ay dugg di dugal sa loxo ci mbiram di jël di sànni loolu mën naa jur fitna mën na jur leneen incha allah wallahu taala alamu sawaaba laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne sant yàlla dëgg-dëgg naka lañ ko war a defee xanaa mooy jëfe ndigal bàyyi tere yi loolu mooy sant sant ñu bari dañoo defe ne mooy yor sa kurus nan alhamdulilah déedéet loola de dëgg la baax na waaye sant nag jëf lay doon i'malu ala daawuda shukra yéen waa kër daawuda de yonent yàlla daawuda bu ngeen dee sant dee leen ko def ci jëf sant jëf lay doon waaye du waxe kese du waxe kese maa ngi sant yàlla déedéet bu dee borom alal ci li muy sant yàlla mooy na tibb ci alal ci tasaare jox mbokk jullit ñi ngir yàlla wane na ko yàlla li ma defal li ma la mooy lii bu dee yow mi am wérgu yaram li ngay sant yàlla mooy fuñ ne allahu akbar julli jot na neel fëxal dem jël sa satala jàpp dem julli ci yàlla wérgu yaram gi ma gi nga defal de maa ngi koy jeexale ci jaamu la maa ngi koy jeexale jaam waaye nag heure bu la yàlla di defal ay xéewal wala yàlla may la ak wér nga kon ne mooy yàlla wala ngay sàggane jaamu yàllaam sëñ Tuubaa nee na kooko fu mën a jaar dem sawara sa Tuubaa ko wax ci masalikul jinaan fa in takun aakila risqallaahi wa anta fi kulli zamanin laahi wa lam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaxilu niiraani yàlla nuñ ci yàlla musal nee na saa yoo xam ne yàlla nga lay defal ay xéewalam rek santoo ko ci jéem a ko ci topp lim wax waaye nga nekk di fo rek fayoo ko ci loola ah gaaw tuub dellu ginnaaw farlu te lu mu nee na kooku day na la wóor ne koy dem sawara la wala yaasu billah kon nag laa takulan abadan risqal ilah wa anta fi sama eh, nga boole ca di di fo kama xaala radiallahu anhu ma ngi ca masalikul jinaan ba kon sant yàlla bu ñu ko ci jëf lay doon mooy lenn lu ci nekk rek la la ci yàlla defal nga faye ko la ca des lam nuróol la may wér-gu-yaram may la kàttan faye ko ak jaamu yàlla waaye yàlla di la defal ay xéewal nga nekk commerçant xëy ndekki sa soxna defal la ndekki nga dem ba marché ak di waxtaan jaay jëndkat yi yàlla di yebal rek jëndkat yi ñu ñëw di jënd yàlla leen fi indi dégg nga macha allah nga dajale xaalis bari te wax du julli wuñ ne allahu akbar nga toog ne damay xaar doo ko julli goree di mënta weesu loolu ku ñëw ne damay sàkku ndimbal nangam nangam nga daal di jël aw ñaar dërëm wala aw juróom jox ko am na kër goo dendal bu ñu añee duñu reer mosoo fa dugg nuyoo laaj boroom kër gi ne ko demal ca bitik ba bàyyil naa la fa saaku ceeb mosoo koo def kon loolu mooy dëgg-dëgg gore mooy ak weddi ku santul rek da ngaa da ngaa sant ci jëf lañ koy jëf lañ koy dewee euh, rabbi awzi'niya an ashkura ni'mataka allati am alayya suñ borom defal nga ma ay xéewal waaye waaye yàlla nanga ma dimbali xéewal yi ma man koo paase ci sant la kon boo lekkee wala nga naan xéewalu suñ borom mu neex loolu yomb loolu am na koo xam ne mënta lekkee noon de buy lekk dañ ko koy sol ma ngi ci hôpital ba am na koo xam ne buy tuur ndox ab raakool lañuy lañ koy opéré génn raakool muy tuur ndox mënta jógal boppam yow yàlla may la ngay lekk lekk gi saf lu neex ngay naan naan gi jàll ngay noos nga noppi ñu ne allahu akbar nga tëddi nelaw ñu noddu fajar nga tëddi nelaw jaamu yàlla nga tëddi nelaw dimbale sa mbokk nga lank bañ koo nga lànk bañ koo def déedéet sant yàlla mooy ñem wi la yàlla xéwale nga nga lekk ko ba mu nekk sa biir bi li fekk ñam wi rees na nga ci def ak jaamu yàlla bu ca moy bu ca moy kon nag bu lekk wërsëgu yàlla ba noppi nag di ko reesale ci ak mooy yàlla wala ci leen yàlla nu ci yàlla musal wallahu aalamu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa ashrafu alsalati wa atamu taslimi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wajcal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bisimilah ñu fas yéene dimandikoo sunu boroom subhaanahu wa taala ci tontu laaji fi jotorot ci yoonu al imaamu malikin rahimahullahu taala ak dégginu waroom xam-xam yi ñuy sukkandikoo seeni wax bu dee laaj bi fi jiitu mbokk mi laaj ne daa am station yoo xam ne boo fa jëndee léeg-léeg dañ naan bo fa jëndee lu mat dix mille wala lu mat cinq mille wala daal lañ wax rek dañ lay laaj sa numéro su ko defee buñ noppee def lu mel ay ngañaay tànn ne yow la yaa gañe nangam muy laaj lu mel noonu ku ca gañe ndax dagan na waaw bu fekkee ne kay jënd moom amul dara lu mu cee perte nga ne duñ ko laaj ne ko da ngay joxe nangam déedéet moom day jënd rek te ba muy jëndit jëndutoon ngir gañe xëy na daa jënd rek daa am soxla dem jënd suba boobaa kon lépp luñ ko jox rek day mel ak may la kon loolu xëy na ay xeetu neexal la. yi nga mi ngi mel ne nga jënd dara ñu defal la bonis may la nangam nga jënd crédit ñu may la nangam ñooy yemoo yow ba ngay jënd da jënd rek amul dara luñ la fayeeku lañ la jox su boobaa rek loola dana dagan incha allah moo xam nag la nga jënd mat na 10 000 wala matu 10 000 moom daal heure boo xamee ne yow jënd dong nga def ñuy def ku jënd rek ñu daal di jël numéroom ci misaal ñu ne teg nañ euh, euh, nangam teg nañ fukki litre essence bañ noppee ba noppi ñu daal bind ku nekk sa tur jaxase ko tànn kenn na kooka lañ koy jox kon dafa mel ne daa am lu ñu bëggoon a may bëgg a tànn ci client yi kenn ku ñu koy may eh, su ko defee tànn kenn rek jox ko ko kon loolu moom dana dagan incha allah waaye bu fekkee dañ koy def na nga xam ne yow kay jëndi moom daanaka la ko yitteel ci biir mooy ngañaay la loolu nag kon dañ koy kartuloo te moom yëgu ko waaye bu fekkee dara tuxu laa jënd lu bëgg a jënd jënd rek loolu lañ la lañ ca teg rek ak may la wallahu taala alam laaj bi ci des mbokk mi laaj ne sariya sariatul islaamiya day tere day tere góor di xool jàmbur bu jigéen bu fekkee dëgganu ko muy laaj xool googa lu mel ne xeetu estati yi nit ñi di estati xeetu photo yi ak yu mel noonu ndax ci lay bokk waa lépp ci la bokk ah sëñ Tuubaa moom ni mu ko waxee daa leer dana min kulli suuratin ak xeetu image bu mën a doon photo image euh, vidéo film théâtre lu mu mën a doon bu ca jigéen nekkee te jigéen ci euh, dëgganu la te boo ko xoolee gis awraam kon nanga war a tëb loola bañ koo xool bu fekkee ne tamit euh, da ngaa jàkkaarloog jëmmam te mu sàgganu nga ne boo ko xoolee gis awraam wala boog boo ko xoolee xool ba xoolu bànneex lay doon su boobaa xaraam na kon jigéen deesul bànneexoo ci moom ci benn anam nag amul photo du vidéo du statut du Facebook boo jëloon ay photo yu mu statut wala yu mu def Facebook nga di ko xool te xool ba xoolu bànneex la nga bàyyi ci xel nag xoolu bànneex a tax ñuy wax waxuñu xool nii xoolu bànneex xool boo xam ne daa nga xool ab taaram wala yu ko nuru su boobaa moo mot moo jëmmam taxawoon nga di ko xool ñooyam képp wa nadarun li ajnabiyatin kaza taladdudun bi qawliha da sa wa kon xool ab jàmbur bu jigéen wala di bànneexu ci ay waxam wala ci daraam lool moom dafa dafa xaraam moo xam foto la moo xam lu mu mën a doon laaj bi ci ne dafa jàpp julli tisbaar jàpp mu tujut ba takkusaan jotee mu cay julli takkusaan am ko ne ko boo ko yeesaloon moo gën waaw loolu dëgg la boo ko yeesaloon moo gën bu la neexee nag mën nga caa julli dara nekku ci sam jàpp daal li fekk tojagut boo bëggee julli mën nga caa julli léegi nag boo bëggee lu gën a baax euh, bëgg lu gën a euh, te ëpp tuyaaba nga yeesalaat njàpp ma su boobaa loola baax na waaye nag kenn du sikkal sax la nga def déedéet la nga def moom baax na waaye boo ko yeesaloon rek taj di dul doo lu baax la lu rafet la waaye nag nekkut ne dañ koo sant nit ki ne ko boo ko deful day wàññi dara déedéet wallahu aalamu bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj koo xam ne dañ koo maanaam imaam daa jiite jàng fatiha jàng aw saar daa di am ngànt am ku mu wutal muy laaj kooke mu wutal bu ñëwee moom fu muy tàmbalee xanaa fi imaam yemoon rek fi imaam yemoon ku ñu wutal ci dara kay boo ñëwee da ngay xool ka la fa jiitu lam def nga tàmbalee foofa kon la imam xas ba def rek lool moom du ko defaat day ñëw rek continuer bu doon sikk sàkk nag lu mel ne julleeg tisbaar la nga xam ne imam daa taxaw taxaw ba mu yàgg mu wutal ko nga xam ne xamut njàng ma fu mu toll bu ñëwee rek mën naa reprendre jàngat fatiha jàng saar continuer te suba dara du ca war waaye bu ko lépp lu mu xam ne imaam def na ko te a baax na bu ñëwee day continuer fi imam yemoon rek mu tàmbalee foofa wallahu a'lamu laaj bu ci tege mbokk mi laaj julli di tàmbalee bismillahi rahmaani rahim da ciy dégg ay wax mooy ne lan moo ci yoonu al imam malik al imam malik mooy bu dee julli farata doo ko wax doo ko wax ca kaw doo ko wax ndànk da nga ko dul wax euh, borom xam-xam yi nag dañ cee wute loolu da nga dégg ci wax yooyu ñetti wax yi nga wax yëpp borom xam-xam wax nañ ko am na ñu ne doo ko wax mooy yoon al moo ëpp doole nag ci borom xam yi te it bu dee ci xaddis yi jorot wax dëgg moo gën a wér ci ñun li ñuy sukkandikoo ak mboolem li borom xam wax yëpp boo ko jàngatee di ko bañ a wax ci julli farata loolu mooy la ci gën a wér ci ñun am na ñu jàpp ne ah kay war nañ koo wax ña jàpp ne dañ ko war a wax ñaari xaaj lañ am na ñu ne dañ ko war a wax waaye ndànk rek ndànk lañ ko war a wax am na ñu ne dañ koy wax ca kaw dañ koy wax ca kaw. su ko defee nag kon béy boo nga jàpp lii ma lay wax rek ndax mooy wax ji gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yi ca lañuy ñuy sukkandikoo te mooy yoonu al imam Malik mooy doo ko wax doo ko wax ca kaw doo ko wax ndànk ci misaal ñu jox la ci euh, ñaari misaal rek anas ibnu malikin moom la njëkk a woy xaadimu rasul moo nekkoon bëkk néegu yonante bi sallallahu alayhi wa na ànd nag yonante bi sallallahu alayhi wa lu ëpp fukki at yonante bi mosu koo corrigé maanaam yonante bi mosu ko wax lu tax nga def lii wala lu tax defoo lii lépp lu mu def rek day dëppoog na ko yonante ba bëggee sallallahu alayhi wa sallam sayidna anas moom moo nettali ne moom ah julli na ci ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonante bi génn àdduna mu julli ci ginnaaw sayidna abubakrin siddiq ba mu génn àdduna mu julli ci ginnaaw Seydina Omar ba mu génn àdduna am na beneen rewaay bu ci boole Seydina Ousmane nee na mësta ànd ak kenn julli mu julli tàmbale bismillahi rahmaani rahim ku ci nekk buy ubbi ubbi ubbee rek alhamdulilahi lay ubbee xam nga lii nag wax dëgg yàlla ko ànd ak yonante ba mu génn àdduna kon ànd naa moom julli yëpp julli bérél yeeg yeedu yëpp ànd na ko Seydina Omar ak lim toog ci xilaafa ni mu yàgg Seydina Aboubacar parce que Seydina Ousmane ak dundug yonente bi salaa salaam nee na mësta ànd ci julli mu dégg yonente bi kabar ne ne bismillahi rahmaani rahim bu heure rek danaan alhamdulillahi rabbil am na beneen euh, euh, hadis boo xam ne nettali na euh, fàtte naa teewluma nii nii ki nettali waaye mi ngi ci risaala ibnu abi sayd al xayrawaani bi mu naan laa tastaftih bi bismillahi rahmaani rahim ca sarxu ba fawaakihu ak yeneen yi andi na fa benn xadis boo xam ne euh, benn saxaaba daa dégg doomam di julli ba mu kàbbaree daa ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba noppee mu ne ko ah, maa ngi lay wattandiku la ngay sos ci diine ji diine yàlla ji lu ci bokkut sos baaxut mu ne ko dégg naa la nga tàmbalee bismillahi rahmaani rahim tamit man day maa ngi lay waatal ne wala boog man day maa ngi lay xamal ne julli naa ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ànd naag julli Aboubacar ànd naag amul kenn ku ma mas a dégg muy muy muy muy julli naan bismillahi rahmaan ci laa ko dégg kon nag boo seeda ñaari xaddis yi moo tax yoon al imam malik euh, noonu la ñu sukkandikoo sëñ Tuubaa nee na wa karihu xaw xalatan wa basmala fil fardi sib nañu julli farata nga di ci tàmbalee bismillahi rahmaan ku ko defee nag julli dana baax dana wér am na yeneen borom xam yu gis na dañ ko war a wax xëy na nag bëgguma dugg ci kii bi ne kii lii la wax ndax ñun yoon al imam malik la ñuy tontoo waaye daal lañ wax am nañ seeni ay dalail seen i tegtal seen i masaadir su boobaa lañ wax ñu jàppal leen ko te nangul leen ko ñaan yàlla nangul ñëpp rek kon daal booy julleeti del tambule rek alhamdulilahi rabbil alamin bu dee ci gis-gisu yoonu al ak lu ëpp ci waram xam-xam yi wallahu taala alamu sawaaba bu laaj bi ñu mbokk mi ah, laaj ne menn mbokk ngi nii moo xam ne jàkka ji jege na ko lu mel ne fajar bu ñuy nodd koy dégg waaye daal moom këram rek lay julee waaw la muy def de baax na xanaa daa fekk na bu demoon ca jàkka ja mu gën a baax loola lu baax la waaye am na lu ko gën a baax mooy ku mën a dem ca jàkka ja nga di ca dem borom xam-xam yi nag am nañu ne jullee ca jàkka ja waajib la ndax am nañ seen benn xadis man sami'a nidaan falam yujib falam yujibhu fala salaata lahu ak yu ci aju aw kama xala sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu am na nu ko yeneen borom xam-xam gisee mooy xadis bi daa xam ku dégg ak noddu te demoo ca jàkka ja nga wuy ji julli ji te amoo benn ngant kooka boo jullee doo am julli moo tax am nañu ne jàkka ja kooka mënta defoo ko amoo julli am ñu ne déedéet loolu nag moo gën a <laughs> am ñu ne déedéet nit mën naa toog këram jullee fa tadu tee mu weer ndax yonente bi salaa salaam ba muy lim ngënee li dane jullee ca mbooloo ma day moo ëppee tuyaaba këram julli ñaar fukki daraja ak ak juróom-ñaar kon yonente bi nangu na ne jullee sa kër am na daraja bu fekkoon baaxul nag kon danaan baaxut waaye dana am na daraja waaye bee moo ko ëpp tuyaaba kon nag julli ji ca jàkka ja bu dee ci yoonu al imam malik dafa bekk nekk sunna soo xam ne su am solo la bu dee ci yeneen ngir nag ñoom waajib lañ ko def kon daal ku mën a julle ci jàkka ji moo gën waaye ku jullee këram baax na waaye jàkka yi nag dañu ko tabax ngir ñu dafa jullee ñun ñëpp buñ jógee suñ kër dafa jullee kon kan moo fay kon kan moo koy te dundal jàkka nag julli ñi ñoo ko yeyoo wallahu aalam alhamdulilah bu dee laaju mbokk mi ci tegu nee na ndax buñ nekkee di noddu nodduk salaatu ndax nit ki mën naa daal di jóg rek tàmbalee julli ñaari rakkee fajar te noddu ki daanoogut waaw mën na ko ndax noddu gi li muy tekki rek mooy waxtu wi jot na bu waxtu wi jotu ko doon noddukat bi du nodd kon ba mu tàmbalee nodd li muy tekki mooy waxtu wa jot na ànd ak loolu nag la gën mooy nga bàyyi ba nodd gi daaru ndax bu bu ñuy nodd yonent bi daaw lu mu fa jàngale euh, iza sami'tumul muazzina yuazzinu fa qulu misla ma yaqulu bu ngeen déggee noddukat bi nodd dee leen répété li muy wax euh, dee leen répété li muy wax bu nodd gi daanoo dégg nga nga ne boo ko toppatoo ba mu daanu nga ne eh, allahuma rabba haasihi daawati taamma wasolaati alqaima aati sayidana muhammadan alwasilata walfadila wabcashu allahuma almaqaamani almahmudani alladi wacadta wabcashu allahu am nañu am nañu def maqaaman am nañu xam ne duñu def àll maqaaman mahmudan alladi wacadta am nañu def almaqaama almahmudan alladi wacadta innaka laa tuxliful miiaad yonent bi nee na loolu ku koy def rek yomal xiyam warlul naa la ne dinaa la ram xonte ñun ñëpp bëgg nañ ko suñ bàkkaar yu bari moom bëgg nañ ko ñu ci génne yàlla ñu génne ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa la la bi sant kon nag defal la la yonent bi sant ba noddu gi daanu su ko dee nga julli su ko dee bari moo gën nag ñuy noddu rek nga gaaw njëkkantee julli donte boo ko defee nag dana wér laaj bi ci des mbokk mi neen daa nekk bitim réew di garder ay boîte Eh, barabu feccukaay yeeg barabu naanukaay sàngara yi fi tubaab yi dajaloo loola xaraam na loola moom yaa ngi leen dimbale ci lu bon maanaam daal ñoom dañuy dajaloo di def lu xaraam ne la yow kaay yow mi jullit bi yow mi nga xam ne yàlla dalaa wax ne la lu bon lii bul ko def lii dafa xaraam kaay gaar kaay gaar dañu di ñu xoolal suñ sécurité ñun ñu mën a mooy yàlla wala taawadu ala ismi bu kenn dimbale dimbale kenn ci ak bàkkaar te yaa ngi leen di dimbale ci bàkkaar kon liggéey boobu na nga ko gaaw wàcc dem wuti beneen liggéey boo xam ne moo gën a moo moo moo gën a dagan wala boog moo dagan ndax bii sax dëgganut bay gën a dëgganaan daganante kon loolu rafetul tey rafetul ci ab der nag dëgg yàlla rafetul ci nga ñëw sax njaboot ñu ne la waa xaalis bi nga yónnee ci kër gi ñuy lekk ak naan foo koy jëlee nga ne ñuy fecc ka naan sàngar gar garde ñu may fay loolu xam nga ne rafetul kon nag na lu tuub loola te bañ koo defati wuti beneen liggéey bu dagan naka noonu nee na day liggéey liggéey boo xam ne day nekk di lekk Euh, defar ak laal ay yàpp mbaam ak yàpp yu xaram ba tey ñooyam rek benn dëgganu ca na nga bàyyi lépp ngir jëmmi yàlla te wuti beneen liggéey moo ko gën liggéey bu ëpp ëpp dignité ndax jullit bi lépp lu muy liggéey rek dagan nga da cay am solo ndax alal ji nga war a lekk war cee dundal sax njaboot bu fekkee alal joojee dafa nekk alal ju baaxut kon yaa ngi leen di amal xaq yow man xam danañ la poñe ne la lu tax nga doon liggéey alal ju bon di ñu ko yox te ñun xamuñ ci woon dara kon loolee dëgganut na ko bàyyi ñu ngi koy ñaanal yàlla ko lu ko gën naka noonu ak déglu musique it ñoo yem rek ndax xeetu liggéey yi moom boo koy def yëpp ci yem musique moom bu dee musique yi xew ni kunna kunna gi moom dafa xaraam bu xaraamee nag kon déglu kook lépp lu ci aju rek yoon da koy tere laaj bi ci mbokk mi di laaj koo xam ne day jàppoo ci satala waaye satala gi ubbuñu ko su ko defee raxas ba yemee raxas nag léeg-léeg ndox mi day delluwaat ci satala ga waaw loola gënut ndax bu fekkee kooka loxo bi daa tilim ndox may jógee ca loxo ma dellu ca satalaka ba soppi cafka ga wala xet ga wala melawa kon ndox ma day yàq du mën a tey jàpp donte nag léeg-léeg xëy na yombut xanaa bu ay loxom tilimee dëgg la mën a nekk waaye ñaari bu ay loxom seetee moom ndox ma ci dugg mënta yàqaat ndox mi mënta yàqaat waaye nag la gën daal mooy naj wut lu ubbe mu jàpp ci wala boog buy jàpp loo xam ne ubbiwut mu wartandi ko bu baax ndox ma dugg ca ànd ak loolu lépp bu ca ndox ma duggee daal te ndox ma tilimut lool tilim joo xam ne ndox ma ca dugg dana mën a yàq ndox ma nekkoon ca satalaga loolu bu ca amul rek nag incha allahu rabbi loola du yàq dara ca njàpp ma te nag yombut ñaara daal nit ko xaw a set tuuti buy jàpp moom ndox ngir ndox jóge ci ay loxoom lelu ci sadra ba mën koo soppi loolu yombut waaye daal faaw loola am ndox ma doog a yàqu ànd ak loolu yëpp na wattandiku nag kem kàttanam wallahu aalamu bisimilah mu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj jigéen ju ëmb ndax dees na ko fase waaw jigéen bu ëmbee dees na ko fase moo tax ñu wutal ko idda sax iddaam mooy bu amee doom bu amee doom rek idda jeex na jigéen ji gis deret baax lañ jul fase léeg-léeg nga di ko dégg nag ñu naan jigéen mu deesu ko fase waaye loolu njuumte ji gis deret baax rek la ñuy tere ko ko fase wallahu aalam bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj na imaam a ngi nii joo xam ne daal xaw na koo jaaxal ndax buy julli bu kàbbaree diggante boo xam ne waree su faa jàng faatiha moom dana fa jàng faatiha ak saar ba rukon muy laaj nu mu war a def waaw xam nga jëfi jàmbur ji muy def te ñun xamuñu ko lu bon bon wattandiku ko moo tax ne comme daal ñun fekke wuñ julli ga xamuñ ba xam la muy jàng nu mu demee waaw ah, la gën rek mooy mënuñoo dogu ci ne jàng na wala jàngut wala julli baax na wala baaxut bu fekkee daal na muy jàng baaxut loolu nag yàllaa ko xam na jàng baaxut wala gaaw na gaawaay boo xam ne ñëpp xam nañ ne diggante bii mën a suufee jàng faatiha ah, kon loolu la muy tekk rek xëy na mooy benn da koo jàngut wala boog njàng moom koy jàng baaxut bu ci mën a doon nag loolu su boobaa kon du yellati kenn di taxaw ci ginnaawam loolu nag bari na ci imaam yi lool sax wax dëgg yàlla ñoo xam ne boo taxawee di jàng faatixe bala nga àgg ihdina siraatal mustaqim moom mu sëgg mooy kon jàng ne faatiha ba bëgg fee jàng aw saar ba sëgg te loolu laa yonqal loolu xel xel du ko du ko ànd ak nag loo xamagul moom faaw da nga ca tey ba xam ah, ba xam ba xam nu mu demee waaye daal bu fekkee daal day gàtt lool ba ñëpp xam ne lii moom lii xaju fi ah, la gën rek mooy imaam jooju moom war ñuy wax ak moom wala boog su boobaa rek du daganati kenn di taxaw ci ginnaam di julli ah, loolu moom mat naa bàyyi xel Euh, ci yoon képp koo xam ne yaa ngi jiite bu fekkee jàng nga faatiha niñ la ko jàngloo kooka moom kenn du ca sikk sàkk lu ci ëpp rek njàng ma day bar ba ëpp am na ñuy tooñ naan euh, njàngum daaru yu njëkk yi euh, da ngay sama benn mbokk njóobeen la la ko yàlla dolli wér Cheikh Ibrahim nee ma nooyi tari robo <laughs> nooyi nooyi tari robo am na njax yi ñuy jànge noonu kar mel ne eh, kii loolu dee su ko jàngee alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ko bul ko def ko def bul jàng di baral sa làmmiñ dégg nga li taajala bi ngir nga ngir jéem a gaaw alxuraan gaaw gi kenn santaane ci gaaw gi baax gi rek lañ santaane wartalnaahu tartilan nañ ko tegale ndànk-ndànk alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim boo ko jàngee noona kenn du taxaw sa ginnaaw naan jàng mi imam bi ak agulum musig wala nangam déedéet maak nag lu nit mënta jàng faate nga bëgg caa jàng faat jàng ci aw saar li muy tekk mooy njàng ma daal war nañ koo xoolaat ànd loolu lépp nag ka jàng moo xam la mu euh, jàng duñ ca dugg waaye daal njàng mu jaar yoon dëgg nag wa dëgg loola kenn du ca sikk sàkk dara euh, wallahu taala alamu sawaaba euh, bu dee laaj bi ci tegee mu ne naka noonu jullik timisit moomit it noonu la day am rakk boo xam ne daal day gàtt lool ba mel ne dañ caa jàng faatiha kese muy laaj kon jullik timis lan lañ ciy jàng faatiha ak saar ak lan lañ cay jàng faatiha kese ñaari rakk yu njëkk yi la ñuy ak saar te ca kaw lañ koy jàng nga di ko dégg su ko defee nag rakk bu mujj ba moom faatiha rek lañ cay lañ cay jàng incha allah wallahu taala alamu sawaaba bisimilah mu dee laaj bi tege mbokk mi laaj yi nga xam ne dañuy naaw ci xeetu njanaaw yi ndax lan moo ci dagan ak lan moo ci daganut waaw bu fekkee ne ci yenn boroom xam-xam yi dañuy wax ne yi am sàll ah, dégg nga yi nga xam ne dañuy am sàll wala ñu am ay weex naan sàll sax wex nga ne ci seen wey lañuy ñuy fàddaate xeetu caali yi nga ne moom la ñuy këf xeetu kii nga seen wey la ñuy fàddaate na ñoom daal ay sibaax lañ dañuy rey seen moroom di jëfandiku dañu am ay weex yooyu moom borom xam-xam yi ñu ci ëpp dañu dafa xaram ngir tegtaloo hadis ba ko wax. bu dee ci yoon al imam malik bii nag moom ñoom lépp luy naaw dañuy wax ne dagan na donte am na yenn duñ cey tudd di ci wax ak sib lu mel ay njugub bak yu ko nuru waaye lanaa yubaaxu aklu kulli taahiri wa kullu taahirin wa kullu bahriyin wa kullu taahiri taahiri lépp loo xam ne lu laab la dagan ñu lekk ko wa kullu bahriyin lépp luy koju géej lu nekk ci géej rek di dund ci ndox mi lu mën doon dagan na nga lekk ko te loolu moo xam méddam moo xam lu man a doon géej sax daanaka ab lay doon da ngay génn rek noonu lekk mu ne wakkul po iri ak lépp luy naaw ndax lépp luy naaw rek yoonu al ñoom dañuy wax ne dagan na dee ñaareel laaj mu ne koo xam ne dafay rëbb wala boog moom ni mu laaj sax wut rëbb dana ku jël fetalam rek diir dara jam ko te waxut bismillah ndax dagan na déedéet loolu moom daganut li tax mu dagan mooy am rëbb lay doon boo yoree sa fetal daal fas yéenee rëbb dem ci àll ba Euh, kon lépp loo diir rek boo nee bismillah nga ne bismillah nga mooy euh, mooy yéenee rendi nga boo ko jamee rek loola dagan nag donte da ngaa dem fekk mu dee sax su boobaa loola moom loola dagan na am maana yor sa fetal jékki-jékki dóor dara rek te jubluwoo rëbb wala boo ko waxoo bismillah yaa ko tey loola xaram na deesu ko mën a jëfandikoo saraan wallahu aalamu laaj mbokk mi ji tege mu ne quatre cinq grammes or yi ñuy natt ne mooy nisaa bi mooy asaka nisaabi asakay xaalis euh, xam naa dinaa la ci yokkalit ak lu mel ne cinq cent quatre-vingt-quinze grammes yi ñu wax ne mooy nisaabi xaalis ndax nisaabi faaw da ngay xool ñaar yëpp am na ne quatre-vingt-cinq grammes or lañ koy xool am na ñu ne cinq cent quatre-vingt-quinze euh, euh, ci xaalis yi ñuy takk moom lañ koy xool waaye laaju mbokk mi nag li ko ci ñor moom nee na buñ koy xool ndax or bu ñu defar ba noppi doon wala xaalis bu ñu defar wala déedéet or bu seel la lay doon wala xaalis bu la or boo xam ne ken laale ko ko defaraguñ ko oor booba la ñuy xool njegam waaye day sujjee boo xam ne segg nañ ko lay ko defar ko ba noppi waaw da ngay xool or boo xam daal ni ka koy jënd or bañ koy jaay ana ginnaaw bi moom mooy defaraat wala xaalis bañ koy jaay ginnaaw ba moom moo koy defaraat xaalisu cosaan boobee bu ñuy xool rek ca lañ koy xool wallahu taala alamu sawaab alhamdulilah bu dee laaju mbokk mi ci tege mu ne lan dañuy eh, maanaam dañuy faral di wax fajuk aajo diw am na fajuk aajo wala am na ngërëmal yàlla wala am na defaruk am defaruk ay mbir mu ne yooyu yëpp lan moo leen wutale ak ñooy yan waaw yëpp day ñoo bokk ndey ñoo bokk baay boo ci nekk rek bi ci des day daal di ñëw ku am ngërëmal yàlla am na aaju ju faju ndax ku nekk loolu ngay wut te am na defaruk ay mbir ku say mbir defaru moom it da nga am ngërëmal yàlla te sa aajo dana faju ku sa aajo faju da nga am ngërëmal yàlla say mbir dana defar kon boo ci am rek ba ca des da koy daal di topp ju faju ak ngërëmal yàlla ak yëpp nag mën naa koo tënkee rek li sëñ Abdourahman Abdul Xudus waxoon nee na daal mbir wit ak defaru daal ak aajo ju faju mooy ñaar nga koy ñaar rek la bu njëkk mooy nit ki bu demee ba mënta gisati ay ayibi nit ñi ndax bon boni nit ñi mënatu koo gis moom sikkam rek sikkus boppam rek lay gis loola day wane ak defaru day wane aajo ju faju nit ki tamit bu demee ba seexloo def bàkkaar nga xam ne ay cëram moom seexlu nañ cee def bàkkaar suba loola day tekki aajo ju faju te def ko ngir jëmbi yàlla rek kon gis nga ne yombut ni ko nit ñi de waxee yombiwut noonu laaj bi ci tegee mbokk mi laaj yàlla nañu ko yàlla defal nag yàlla mën na ko laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne moom day faral di wax ak ay mag waaye buy waxak ak ay mag leer na day yëkkati kàddoom ndax xëy na mag ña noonu la ñuy waxee ak moom te xëy na gis na ne bu amul ful la ci ni muy waxee ak yu mel noonu mën nañ koo amel ak yu bari wala mën nañoo joggati ci kawam waaw lay ay tegginte ci cosaan mooy mag moom dañ koy wormaal tariqatul adabi rahmatu saghir kal abbi wal ummi wa tawxirul kabir moo ci tegu yonent bi salaa salaam nee na laa yazaalu ummati bi xayrin maadaama saxiruha yuwaxirul kabir wa kabiruha yuinu li saxir xeet wi ci jàmm la ñuy nekk li feek ndaw a ngi weeg mag mag a ngi yëram ndaw ah su boobaa nag mag ma bu fekkee ne xëy na daa am nu muy jëflanteeg yow noo xam ne faaw da nga def raddul fi'li mooy da am noo jëflanteeg moom noo xam ne dana tax doola la sa kaw wala du tooñ wala du la jalkati noona ayut waaye daal nanga nga góorgóoru sàmmonteeg ay teggin sa kem kattan ba doo ko ñàkkee war ma doo ko def loo ko ta def rek bu dee nag daa am jikko joo xam ne faaw nag danga nga am fulla tuuti su boobaa nag kenn la nga am sa fulla waaye rek daal foo tool daal deel euh, jëfandikoo xorma même bu fekke moom jëfandikoo la xorma yow dee ko def même boo gisee mu xaw a doy dool mel nangam dee ko def wala ra'aytahu da'ifan wa xaqir la sëriñ bi jàngale woon kon nag la ca ñàkk rek ci yëkkati kàddu ka ak wax wax ja loolu xëy na mënta ñàkk waaye na góor góorgóor rek ba ñaawi teggin daal ak ñàkk ma loola bu mu ca bu mu ca am wallahu aalamu laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne dafa jëm ca jàkka ja ci jamono yi suba waxtu fajar ba nee fekk ñuy taxawal nga xam ne kon mënta julli ñaari rakkee fajar am na nag ñoo xam ne ñoom bala maa jàllale laaj bi ñoom bu ñu jëmee jàkk ji àgg fekk jàkk ji li xam bu ñëwee dañuy jéem a bokkatu naan dañuy jéem julli ñaari rakkee fajar loolu njuumte lu rëy la bu ñu xasee bay li bay li xaamal imaam rek kooku moom loo doon def sax dagg ko kooku moom boo ñëwee bul jéem a julli dara demal rek ànd ci julli ndax ànd ci julli ga ji nga ci mën a jëlee seconde ya nga fay fekkee rek moo gën naafila goo mën a def kon nag boo xasee bay dugg ñuy liqaam rek bul jéem a def dara bul jéem a naafila bokkal ci julli ñu àggale ab laajam nee na kon mu daal di ñëw bokk ci julli ga ba imaam sëlmalee ba mu dellu këram muy laaj ndax mën naa fay. ñaari rakkay fajar déedéet ñaari rakkay fajar bu la xasee ba raw da ngay bàyyi ba naaj wi tàng nga koy doog a julli ci misaal boo àggee sa kër ba euh, huit heures demi neuf heures diggante boobu incha allah nga fay ko waaye boo xasee ba sëlmal suba ba keroog jant bi fenk dañuy tere ko fa naafila allahu aalamu bu dee laaj bi nga xam ne moo ci tegu mbokk mi di laaj nee na day dégg Sëriñ Sàmbay radiyallahu anhu muy wax ku ñu dugal ci bàmmeel naan doo lekk lu dul daani malaayika doo naan lu dul daani malaayika wax dëgg yàlla de xamuñu ci dëgg-dëgg lu sëñ sàmbay jublu ci loolu eh, xamuñu daal lu ci jublu eh, xëy na nag liñ ci mën a déggee rek mooy bàmmeel daal boo fa duggee yeneen situation la mooy daal ay mbiri malaaka nga fay fekk malaaka yi laaj yi lay laaj boo ko réussiree incha allah sa mbir baax boo ko réussir nag yàlla na ci yàlla musal su boobaa nag xëy na la daani malaaka yi doo ko ñëw bu dee ay daan lim jur mooy ay duma wala mbugal subaa kon kooka euh, ay mbugal lay dajal yàlla ci yàlla musal musal ci jullit ñëpp amaa dëgg-dëgg lu mu jubli ci daani malaayika nun taxut nu xam ko yàlla na yàlla fayal ñu sëñ sàmbay radiallahu anhu ci liggéey bu rafet bi mu liggéeyal diine wallahu aalam bisimilah bu dee laaju mbokk mi muy laaj koo xam ne day liggéey ci wàllu mercerie mooy di jaay ay wëñ rouleau yooyu ñuy kii ak lu jëm ci wàllu tissu yi mu ne dafa bëgg a génne ay asa dafa bëgg génne asaka bi mu ko inventaire nag mu xamut ba xam euh, rouleau yi nga xam da koo jot a dagg wala yenn tissu yi nga xam da koo jot a dagg wala yenn wëñ yi xaw a jaxasoo tuuti muy laaj nu mu koy def ba man koo xayma waa day boole loolu lépp mboole mi nga xam daal daa daggatoo xaw a tasaaroo bu fekkee am na njariñ su waa day boole lépp xayma ba ku doon jaay ñaata lay jaral nit maanaam ko mooy dagg daggit yooyu yëpp da koy dajale bu ko dajalee mu xayma lii nii ku ko doon jaay ban piri lay am ku ko boole woon lépp di ko jaay en noonu ban prix lay am ni ki bu dee euh, ci misaal aw daggit la woo xam ne am mètre la woon mètre ba doon jar trois cent léegi xaaju mètre baa fa nekk subaa kon day xayma lool rek nekk mu nekk fanweer wala boog mu nekk ñaar fukk juróom mu fekkee dafa xaw a ba xaw a fënd nga xam ne lii ku ko doon jënd du a jëndee nii da nga boole yu bari jaay ko ko mu koy doog a jënd su ko defee dañ da koy xayma noonu rek prix boo xam daal xam ne ne gën gaa néew lii ku ko doon jënd ci ñi nga xam soxla nañ ko dana jar nangam su ko xayma ko loola jekki-jekki ne lii kon xam naa ne dana tolloog 2000 wala dana tolloog 3000 wala lam koy tollool rek bu mu ko xayma lu ëpp nag loo xam ne xam na ne lii bu ko doon jaay mën na cee sonn déedéet da loo xam ne ña bëgg loola ku leen ko waxoon dana leen ko jaral mu xayma loola boole ko ca wallahu taala aalamu waaleykum salaam wa wa barakaatu akay sëriñ bi a yoor yoor daal bu huit heures demi jotee rek daanaka jot na bu huit heures demi jotee ndax fi mu toll jant bi mi ngi fenk boori eh, jam bu dee jamono ji ay sept nangam <coughs> bu dee jamono yi ñu toll noonu ay sept nangam la jant bi di di fenk euh, mën naa dem ba sept heures euh, trente yooyu ay sept demi daal li jant bi fenk kon nag bu huit heures demi jotee jàpp neuf heures rek diggante boobu yëpp waxtu julli yoor yoor la jàpp dix heures demi ba onze heures sax manees na ko julli yoor yoor incha allah bu dee ndax julli suba dañ koy liqaamal bu dee li nga jublu mooy ñaari yi nga xam ne farata la nga xam ne bokkut ak ñaari rakk yi fajar yi bu dee ñaari yi nga xam ne moom julli farata yëpp la ñuy liqaamal boo déggee ñu ne lii julli farata mooy juróomi julli suba tisbaar takkusaan timis gee yëpp la ñuy liqaamal naka noonu julli subaar faatiha ak saar lañ ciy jàng waaye day jàng faatiha dong bu dee nag ñaari rakkay fajar moom faatiha rek lañ ciy lañ ci sopp boo ci tegee saar it ayut ndax solo nañ ci yoronto bi mu ne daana ci tari ñaari xul yi kaafiruun ak xul huwallaahu waaye bu dee ci yoonu Maalik moom dañuy sopp nga yem ci faatiha rek fajar ak suba ñu bëri dañ koy jaawal bu dee fajar mooy ñaar ak yi nga njëkk a dawal doo ko julli doo ko julli farata yi suba yooyu moom naafila la kon moom naafila la waaye bu dee ñaar rakk yi suba yi nag nga xam mooy julli suba bokk ci julli juróomi moom faawu day am day am aw saar wallahu aalam bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ku ñu dénk alali miraas maanaam daalika mooy alal ji ay gone ñoo ko moom seen bàyyi faatu ñu ci misaal ñu ne xale kat ci miraasu seen baay mi am nañ ci ñetti million mu ne moom ñu dénk ko ko muy laaj ndax mën na cee commerce ak ndax bu asaka jotee da ci génne asaka tont li mooy commerce ji sax moom lañ santaane moo gën buñ sañoon da ciy commerce ndax alal ji dañ ciy génne asaka mooy laaj bi mujj a laaj moom ci alal yëpp lañ koy génne alali goneek alali ab dof ak alali liir buy doog a judd ñooyam heure boo xamee ne mat na nisaab mooy mat na tolluwaay ba te mat na at rek dañ ciy génne asaka kon alal gone yooyu heure bu asaka jotee na woo seede ne leen ah alal gone yi kat mi ngi nii 3 millions la million bu ci nekk dégg nga euh, juróomi junni mooy asakaam kon nag mi ngi nii 75000 la mooy asaka ji dem jox ko way ñàkk ja loolu nag boo ko yàggee def bu yàggee balaa xale yi màgg boo wëtandikut alal ja mën naa wàññi ko bu baax moo tax dañuy bëgg kuñ dénk alal jirim nga di ci yaxantu di ci def ay business business yooyu nag bul defee ne moom déedéet. benn nga defal ko nga defal ko xale yi ngir yàlla wala boog nga di ko def di ci di ci am sa bénéfice heure boo businessé mu mel ne xiraab heure boo bis heure boo ci dugalee jënd ci gerte jaayaat wala nga jënd ci ay bagage jaayaat bénéfice ba nga cey am da koy xayma boo ko xaymaa nga ngeen séddoo ko wala nangam pour cent yi la ca des nga teg ko su ko dee asaka buy génn mën na génn ca loola nga xam ne xaalis moom du wàññi ko waaye kenn du ko téye noonu rek kon asaka da ciy war te it lañ gën a taamu sax mooy mu commerce ci bañ koo bàyyi noonu rek muy wàññi allahu taala aalamu bisimilah alhamdulilah mu de laaju mbokk mi muy leerlu ne daa gis ci àll bi baykat yi bu ñu bayee lu mel ne dugub ba noppi dañ koy takk buñ ko takkee nag buñ noppee bu ñuy génne asaka bu ñu wàññee juróom-ñeenti takk génne benn ba mu jeex buñ noppee nag joxe ko asaka nee na tamit waaye nañ koy joxe daal tey na xelam ndax daal dañuy xool seen xarit yeeg seen jege ñaale yi ñi leen gën a jege xëy na ñoo xam ne xëy na ñi ngi xaar may leen ci mbay mi ñu yëkkati ci asaka jàkku nañ jox la ñaari takk wala lu ko nuru ah bu dee ñaar yi nga wax waxagun yëpp de amagul amagul dara luñ ciy wax ndax bu dee nañ ko génnee baax na mooy juróom-ñeent yoo wàññi génne benn wala bu la neexoon nga xool dugub yëpp ni mu toll nga xaaj ko fukki xaaj génne benn ba juróom-ñeentee nga jël amaa ñoo ñu koy joxe doon sa xarit ak yu mel noonu loolu te wuta lekk asaka fekkee koy jox doon dañ xaar ñu may leen kon dañoo ñàkk yittewoo nañ ko kooka nag bu fekkee daa dëppoog mu nekk sa xarit wala mu nekk sa mbokk nga jox ko ko ayut waaw li ñuy bañ daal mooy jox ko ku ko yeyowut waaye bu dee ka ko yeyoo sa mbokk la baax na la ñuy bañit mooy nga teggi kii ndax kii du sa mbokk nga bàyyi ko dem jox kële ngir ne kii du sa mbokk su boobaa kon par loo la te alali jàmbur day su ci parpar loo yàlla dalax jox ko way ñàkk ñi kon fa yàlla rek ngay xool foofa bu loo ne kii damaa xuloo moom du ma ko joxe asaka déedéet bu dee sa alali bopp kooku loolu bu la neexee mën nga ko bañ a jox waaye bu dee alal yàlla la moom mun la joxal ma ko diw mi kooka yeyoo ko boo ko teggee jox ko keneen kon da ngaa xëtt ndigal te daa mel ne xoolatoo ci ngir yàlla sellalatoo ngir yàlla su ba nag kon toyaaba du ci du ci am faabudullaha muxlisan lahu diin la alquran santaane hasa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wallahu taala alamu bisawaab wa ilayhi almarji wal maab wakii li mooy laaji fi jotoon nu doon dimbali ko suñu borom di ko jéem a tontu lépp lu ci jub ci yàlla rek rek rek la euh, lu ci dëng nag wala mu nekk ca njuumte loolu ci matatik doomu aadama la yàlla na ko yàlla jéggal te jéggal leen boole defar suñu mbir. waaleykum salaam wa rahmatullah kay jërëjëf soxna si bu dee li ngay laaj daal mooy bu boroom boo génn góor faatu wala génn jigéen njabootam ga ko njëkk a faatu ndax dañuy bokk ci miraas mi tontu li mooy déedéet. ku njëkk a faatu moom kooku moom amul wàll ci miraas waaw kii faatu bi muy faatu ñim fi bàyyi ñuy dund ñooñu rek ñoo koy doon waaye ñaxas ba faatu moom te ñoo njëkk a faatu ki ñuy miraas ñooñu moom duñ doon bu fekkoon nag ñoom ñoo mujj a faatu waaye faatu nañ ci misaal seen bàyyi daa faatu laataa ñuy miraas am ko faatu loolu moom du tee kooku bokk ndax bi góor gi faatu boo bàyyi na ko muy dund kook ginnaaw bi même bu faatoo te miraasaguñ dañ koy génneel wàllam waaye ku jiitu nag kooku moom du doon. wallahu aalam waaleykum salaam mbokk mi laaj ko sëlmal foo xam ne waru fa woon sëlmale maanaam julli gi jeexagut mu sëlmal gannaaw mu xam ne julli gi jeexagut nu muy def bu fekkee yeggut ndax bu yàggee moom julli gi yàqu da koy tàmbaliwaat waaye bu fekkee nag yeggut day jógaat kàbbaraat kàbbar armal ngir yéene mottali day kàbbar su ko dee bu mottalee bu noppee day def baax na salaam rek mu jeex wallahu a'lam bismillah waaleykum salaam sëriñ Muhammad na ngi lay delloo ziyaara bu dee ab laajam mu ne benn waaye ngi nii boo xam ne ba mu jullee timis ba julli gee ba noppi gannaaw ba lay doo ko fàttaliku ne moom ba muy julli tisbaar takusaan amutoon jàpp na muy def da leen di fay rek mu jeex waaw day dem jàpp ci wala bu fekkee am na jàpp day jóg julli timis lay liqaam julli timis jugaat liqaam julli jeex na amaa timis gee géegi moom baax na wér na wallahu a'lam bisimilah mu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ndax mag bu fasee soxnaam mba idda ji jeex rakk mën na koo takk wala rakk fase soxna ba idda ji jeex ka ca mën na koo takk tontu li mooy waaw naa bu dee ci aada nag taxul mu rafet waaye daal dagan na ci lislaam wallahu aalam bisimilah waaleykum salaam mbokk mi leerlu wax gi ñuy wax naan xutba ajjuma ajjuma daa mel ne ñeenti rakk la woon léegi xutba gi nag mooy wuutu ñaari rakk yi muy laaj loola nu mu demee loolu waxin la rek dañoo bëgg wax ne boo dégluwoo xutba bi sellal ko su ko defee sag julli day mat mel ne daal moo mottali yeneen ñaari rakk yi mu war a nekk ñeent waaye sa dëgg-dëgg nag xutba bi taxawul taxawaayu ay rakk déedéet xutba bi moom nekkul na daa taxaw taxawaayu ay rakka maanaam saa rek mooy lan euh, ma jox la benn misaal bu gàtt ki ñëw santeeg ñu xutba ba noppi di leqaam xanaa kon ak julleem baaxut ndax mu fekkewul xutba gi ñaari rakkee rek la fekkee te bu ko jullee baax na wér na incha allah kon loolu mu waxin la mooy daal xutba bi day tax julli gi gën a mat ndax ki nga xam ne ñi ngi xutba muy wax te moo ko tey euh, tabarkàlla amul benn ngànt mu jekkee di wax kooka ab yooram day manqué xam ne day mel ne bu ñu fayee ñi ajuma ju mat moom ajumaam day manqué naa xis lay doon wallahu taala alam aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu laaju soxna si mu ne euh, jigéen ñi nga xam ne boo weeru koor ñëwee bu leen fekkee ci ëmb ñu woor nga ne weer yëpp mën nañ koo bañ a woor euh, te nàmpal bi day yàgg nga ne bu koor gi dellu siwaatee tamit dañuy nàmpal nga ne kon mën naa am mën nañoo am baru ñaari weer muy laaj loola nuñ koy fayee <laughs> fay de moom weesuut nañ ko lebe woon dong nga koy faye njuumte li fi mu tàmbalee mooy defe na jigéen ju ëmb du woor loolu njuumte la jigéen bu ëmbee du tee daa war a woor jigéen ju nàmpalit daa war a woor boo déggee ñuy wax na jigéen ju ëmb mën naa bañ a war mooy bu amee ngànt loolu moo góor fi yam ne góor am ngànt feebar wala dara du woor kon jëmmi ëmb bi rek du empêchement nekku ne ku ëmb rek waroo woor nekku ne kuy nàmpal waroo woor jigéen ñaa ngi ëmb di nàmpal def lépp am na jigéen ñu ñu xam ñoo xam ne ñu ngi ëmb di woor naka jëkk bu ñu ëmbee dañuy woor mosu leen a yàqal dara am na jigéen ñu ñu xam ñoo xam ne heure bu fekkee ci nàmpali dañuy woor kon yooyu daa bëri ay ñenn yi dañ ciy jaare bëgg ga tappale waale ñenn ñi seen ñàkk a xam diine defe ne jëmmi ëmb bi rek mooy war déedéet du jëmmi ëmb bi ak jëmmi nàmpal gi moo lay teye woor dañ ne bu fekkee ne dana jur ngaañ wala bu fekkee ne baaxul ci xale bi wala médecin xool ne ah yow kat dafa mel ne nangam nangam ñu ki bëri woo am soow bay boo nangam waaye ëmb di woor moom lu nekk la jigéen ñaa ngi koy def nag jigéen ju bari dañ ciy bëgg a raaxaloo waaye bor boo xam ne boo ko lebee da nga koy fay donc loolu ma jëru di ci tappale ndax bu fekkee ne am nga ñaari weer yoo war a fay day tàmbalee jafe tuuti loolu bu la bu seytaane ma ne doo ko fay doo ko fay kon nag euh, boo waree nampal góorgóorlu la nga war a nampal maanaam la nga war a lekk ruyaag yu mel noonu nga xam mooy tax nga am soow nga nga xëdde ko incha allah du ci yàq dara du tee mën ngaa wartu du la wàññi dara boo dee ba yëg na nag fi mu toll nii kat mënatoo nga xam ne dangaa mënatul nga bàyyi loolu lañ wax waaye di dajale ay weer ay weer rek di la bañ a war naan damaa ëmb loolu moom Eh, ku ëmb loola téewut a war lu dul nag daa am ngànt dañ naa xool yow mii moom mënoo ko ay kaala rek ni nga xam ne doomu aadama am na ñoo dara jotu leen ay góor lañu wala ay jigéen lañ dara jotu leen waaye yàlla moo leen bindee noo xam ne mënuñoo war noonu la amee ñu ëmb ñoo xam ne ñii moom mënuñoo war am ñoo ne mën nañ ko kon ña man dañ ko war a def buñ ko defut rek dañ ci am bàkkaar day mel ne kon dañoo wóoru te ko tey kon loolu mat naa bàyyi xel waaye ak ak mën a demee rek mooy fay doom mooy solution bi fay rek faaw da nga koy fay boo ko fayut da ci am ay bàkkaar te lu weeru koor di gën a ñëw nga di ko di ko gën a dajal muy gën a bari muy gën a nekk bàkkaar te dañ lay teg ay àllaman man daan ah, dañ lay teg ay àllaman muy ay daan kon nag di góorgóor boo ëmbee di woor ba ne ba yëg ne mën toog nga doog a bàyyi kon boor yee mën naa am dana ne wala boog danga nga woor weer wépp waaye ak lu ci mën am daal bu doon fukki weer la fukki weeru koor yoo tegale tamit weer wu nekk war nga koo fay te fay ki bu koor gi jàlloon ngay def weer wu nekk nga bis weer wu nekk naa ci war ñetti fan loolu boo ko defee bu yàggee mu dañ waaye boo taayelee leen di taayal di taayal di taayal dangay dajale ay bor te day gën a bari rek te jigéen ñu bari moom dañuy lànk di bañ a fay ñenn ñi di wax waxi joo waxi ceddo sax man du ma yàlla muy wax joo xam ne dafa rëbetul sax ci ab jullit mu di ko euh, mu di ko wax ndax waxi waxi ceddo la maanaam yàlla du caaxaan ngëm yàlla du caaxaan bañ koy fay naa man du ma fayante yàlla koo xam nga bëgg a def euh, bàkkaar wala nga bëgg a def lu bon def ko rek ak sa diggante waaye def a bàkkaar ba noppi nag di ko layale lay wax mel na kuy ñaawal yàlla man dama fayante ak yàlla baat la bu ñaaw boo xam ne ñu koy wax seetluñ ko waaye baat bu bon la wallahu taala alamu sawaaba waaleykum salaam mbokk mi laaj ku doon julli luy lore jëm si ci yow nooy def ci misaal aw nag boo xam day bëkkaate da wut si la wala xaj buy wala jaan bëgg laa matt nooy def man de xawma ban tontu moo fi am xanaa xanaa kii laaj xaaruñ ñu ne ko da ngay taxaw mu matt la wala da ngay taxaw mu bëkk la am na yoo xam ne xel rek da koy da koy xalaat ñaari tontaam benn ñu la dangay dem musal sa bopp wala nga taxaw mu maat la te xanaa xanaa do <laughs> xanaa nit am njóobeen ba gën a gàtt xel sax xanaa jëpp ne kay xanaa dañ naa ne boo jël na ngay taxaw jaan màtt la wala nag mbëkk la nga dee wala oto fiir la nga de loolu benn tontu rek moo fi xelu tontu boobu nag mooy tontu bi xel nangu wallahu aalam